nanu waxtaane itam sunu mbir yi àdduna ndax sunu mbir àdduna àdduna siikat fi la ñuy waaje sunu mbiru ëllëg fi la jaamoo yàlla fi la ñuy liggéey fi la jëfe lu baax fi la dawale ci sunu bàmmeel loo xam ne ñu amal njariñ àdduna ak àllaxira kon nag di waxtaane sunu mbir yi àddunaat du jaadu la suñ taxawee ci barab yi rawatina lu jëm ci xew-xewi jamono muy actualité xam ngeen ne ñi ngi jëm dibéer muy dimanche ci ay tànn njiitum réew ñaari ajjuma yi ñu génn waxtaane nañ lu jëm ci candidat lu ñu war a saytu ci ñoom lu jëm ci seeni programme candidat lan lañ war a saytu ci ñoom waxtaane nañ ko muy seeni jikko seen xam-xam seen set loxo seen mën a liggéey seen am pas-pas ak seen sàmm diine ak sàmm unité nationale bañ a féewale xeet yi waxtaane nañ itam seeni programme li ñu jàpp ne war na caa nekk ngir ñu saytu ko suñu waree tànn muy lu jëm ci dëgëral démocratie lu jëm ci dëgëral yoon yoon gën a maandu ku am àq jox la ko waxtaane nañ lu jëm ci njàng mi nan lañ war a def ba dugal ci sunu diine suñu pas-pas sunu aada cosaan sunuy làkk loolu lépp waxtaane nañ ne war nañ koo saytu ci programme candidat yi bala ñoo tànn ngir mën a tànn koo xam ne dana mucc ay waxtaanee nañ itam lu jëm ci wàllu programme yi ci wàllu développement la ci aju lépp ak wàllu social nga xam ne ka ñuy tànn war nañoo seet ci moom yërmande ndax jiit dafa war a yërëm ñi mu jiite ndax gënu kon nañu sayt loolu itam waxtaanee woon nañ ko fi war naa yërëm ñi mu jiite leen dimbale ci wàllu njàng mi wàllu santé wàllu dimbali néew ji doole yi wàllu nos asaka yeeg lu ñu demee ni ko lislaam nose ngir dimbalante gën a mën a dëgër suñu réew mi bokk yi nag tey li may mujjee waxtaan ak yéen ci loolu mooy feeg ñu jëm ca tànn ba mooy ñun ci suñu bopp nan lañu war a def lan lañ war a nan lañu war a taxawee nan lañu war a tànn lan mooy suñ responsabilité bokki jullit yi tànn bi jàpp naa ne ñetti taxawaay mën nañ ko cee jàngat taxawaay bu njëkk bi mooy nga maandu ne du ma tànn liñ naan abstention neutre bañ a tànn kenn loolu de jàpp nañ ne du xalaat ndax sallallahu taala alayhi wa sallama ngën ji bindeef neewoon na képp koo xam ne doo yittewoo mbiri jullit ñi bokkoo ci ñun ab jullit day yittewoo mbiri mbokk jullitam su fekkente ne tànn bi ñuy tànn di tànn njiitum réew mën nañoo tànn koo xam ne mën naa defar mën naa yóbbu réew mi ci mu jëm ci kanam mën naa yóbbu diine ji mu jëm ci kanam mën na ko gën a dëgëral mën naa gën a def lu baax lu amal nit ñi njariñ ci wàllu social ci wàllu éducation ci lépp yow nga ne daal man sama yoon nekk ci loolu ñoruma day mel ne yitte woowoo ëllëgu jullit ñi rawatina ëllëgu doomi jullit ñi walla ñuy tànn soo téye sa loxo ne du tànn téye saw carte ne dama woor dama sonn dafa tàng dama tàyyeel jaru ko ci man ba am ñoo xam ne danañ tànn koo xam ne matewu ko mënu ko te su ñëwee du yërëm nit ñi du leen buntu xataal di leen fitnaal su boobaa da nga am responsabilité ci ñàkk tànn boobu nga ñàkk tànn ndax ñàkk tànn tànn la kon bokk jullit yi nañu moytu abstention su ñuy taxaw ngir doxal suñ mbiri réew nañ ci dugal suñu loxo ndax citoyen lañu wara doon bu ko mate kon nag lii dafa aju ci ëllëgu réew mi aju ci ëllëgu ndawi réew mi kon lu ci kenn téye sa loxo jàpp naa ne taxawaay boobu moom ëpp naa def beneen taxawaay bi mooy nga tànn koo xam ne ba nga koy tànn càmbaroo ko seetoo ay jikkoom wala boog sax xam nga ay jikkoom ci ñàkk maandu ci ñàkk a mën a yor alali réew mi ci jalgati alali réew mi ci ñàkk seeti loxo ci ñàkk gëm état de droit muy képp koo xam ne say droit ñu mën ko sàmm ci réew mi liberté ak démocratie ñu mën ko sàmm ci réew mi soo seetee ku mel noonu nga xam ko xam ko ci parcours am xam ko ci jëfam xam ko ci li mu jot liggéey wala mu bind ko wala mu wax ko wala ñu wax ko ci moom te mu wér su boobaa nga tànn kon ku ko matewul dafa mel ne da nga am responsabilité bu rëy rëy ci ëllëg ak si biir lu mu fi def ci ab safaan ndax kat képp koo gis ne diw mii ab agresseur la nga jël paaka may ko ko wala nga abal ko ko lum mu ci agressé da nga ci am bàkkaar bu toll ne la mu ci am kon nag suñ carte bi mu ngi mel ni paaka boobu bu ñu ko jox mukk koo xam ne su ñëwee day toroxal askan wi wala dañoo wóor ne kii ab jalgatikat la wala luubalkat la walla matewul li tax ñu koy tànn kon loolu moom it ëpp naa def kon nañ saytu bu baax a baax ñi ñuy tànn képp koo xam ne gis nañ ci yow gàkk-gàkk boo xam ne mën naa tax ñu ñaaw njort ci ne ëllëg ngi si biir man ngaa jalgati rikkuwaay nañ moytu di la jox suñu kart ndax suñu la joxee suñu carte ëllëg lu ci jalgati moom moomu ñu tànn yow mi ko tànn da ci am responsabilité ci loru ak loru loru askan wi ci àdduna waaye ëllëg yow mal xiyaam it bàkkaar bu mu am ca lor yam teg askan wi da ci am sa wàll ñetteelu taxawaay bi nag mooy nga saytu candidat yi xool leen càmbar leen xool seen jikko xool seen jaar-jaar xool ba xam matal nañ ko ci wàllu xam-xam ci wàllu njub ci wàllu maandu ci wàllu man liggéey xool seeni programme itam ba xam méngoo na ak askan wi bëgg li askan wi li ñu bëgg xool seeni programme ba xam méngoo na ak loolu su ko defee nga tànn kooku foofu nag moom day mel ni kon sa jaan wàcc na ndax càmbar nga xool nga saytu nga la nga man fa doomu aadama mën a yem su boobaa nag ñaari mbiree mën a am mooy kooka ñëw wor la jalgati def lu dul noonu wala bu def safaan su boobaa yow amoo ci responsabilité ndax càmbaroon nga tàndal tànnoon nga ci critères yu leer yaakaar moo la taxaw na tànn suñu woree sa yaakaar jooju nag amoo ci benn responsabilité ki wor def ab safaan mooy yore responsabilité bi waaye su fekkente ne ki nga càmbar tànn ko ci tànnin mucc ay mu ñëw def la mu liggéey woon liggéey mu nekk njariñul askan wi njariñul réew mi su boobaa faw da ci am sa wàll ca tuyaabay àdduna ak tuyaabay àllaaxira ndax da ci am njariñul àdduna ndax la mu defar la mu def ci réew mi njariñ li mu indi ci réew mi danga ci am sa wàll sa njaboot am ci wàllam say sëtaki setaat am ci seen wàll ndax su réew mi defaroo day defaru ngir ñëpp waaye ëllëg yowmal xiyaam it njariñ loolu ci juddoo lépp da ci am sa tuyaaba kon nag bokk yi nañu settantal kan lañ war a tànn def ko ci suñ tey bakkan def ko ci jàmm def ko ci ni ko luwaay ni ko démocratie laaje muy kenn ku ne dem seet kala doy nga tànn ko te tànne ko ci anam yi ñu doon wax muy saytu ko bu baax a baax su boobaa ñi ëpp ci Sénégalais kuñ ne moom lañ tànn ñun ñëpp nañu ànd maase xam ne lii la yàlla dogal kii la yàlla teg ci bopp réew mi jaarale ko ci loxoy Sénégal yi su boobaa ñëpp nangu ñiy saytu itam élection yi nañ ci indi maandu bañ a jalgati li bëgg bëgg-bëgg Sénégalais yi li Sénégalais yi décidé daal ñëpp nañ ci tënku bu ko kenn jéem a bu ko kenn jéem a jalgati buñ dem ba ci biir ñu jéem ci indi leneen lu dul noonu kon na ñëpp maase ci def li ñu war a def suñu devoir citoyen ñiy saytu di ko organiser élection yi def li ñu war a def mooy li leen loi bi digal ñii atte itam atte ci maandu ba ñi ci sénégalais yi tànn ñun ñëpp ñu maase xam ne kii la sénégalais yi tànn kenn du ci am benn laam-laamee su boobaa ñu jéem a defar sunum réew te dékk suñu boroom suñuy loxo ñaan ko mu defaral suñu réew ñoo ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu yóbbu ñu ci ak jàmm defal ñu ci jàmm ak tawféex te lu ca juddoo nekk njariñul Sénégal ndekk njariñul waa Sénégal allahuma salli ala sayidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yaxfiru llahu li wa lakum wa li saa'iril muslimin amin